ma mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum yéen ni nga xamante ne bàyyi xel suñu tv point com tey nag dañu seet si ki nga xamante ne yàgg nañ ko soxla ki nga xamante ne yàgg nañ ko bëgg a rencontré wër nañ ko fu nekk nag mënuñu fexe ba jot ci moom waaye tey dañu waaxu rek ñëw ba dëkkam bi nga xamante ne fii la tekkee fii la def lépp li nga xamante ne mooy euh, carrière ci wàllu politique muy def nag buzz di xale boo xamante ne loxoom dafa set wecc di xale bi nga xamante ne dafa bëgg le président Macky Sall ba mu jeex tàkk tax muy jël alalam di ko def ci le président Macky Sall dama koy daal di jox nag euh, sama micro euh, dalal ko bu ma ko joxee micro rek di ngeen xam kan laay waxal. ñu koy daal di tàllal suñu micro mu nuyoo asalaamaaleykum Alioune Badara. ma salaam soxna Awa maa ngi lay fay di présenté wu man la Alioune Badara lii président IRM initiative pour la réélection de Macky Sall en 2019 dëkk fii ci Koungheul di responsable APR. Euh, bu ñu jógee foofu noonu yéen a ko déggal seen bopp présenté wu na moom Alioune Badara li nee naa leen xale la waaye loxoom dafa set ba tax na muy def liggéey bu set wecc ci euh, le président de la république Macky sàll bëgg lool nag dëkkam. ñu ngi gis ne ñu ngi dem ci euh, élection présidentielle ñu gis ne da ci cee niin batt nag waaw da nga cee niin batt ba ñëpp xam na niin nga ci bat nan ngay def ba falaat sa président. waaw jërëjëf question boobu dinaa ci sawar a tontu soxna Awa parce que nag président Macky Sall ñun dañ jàpp ne dafa am bilan te président buy laajaat second mandat muy président sortant defe naa bilan moo ko war a fal te nag président am na bilan bu am solo donc ñun fii ci Koungheul defe naa ne sax ci comité électoral bi nga xamante ni moom mooy communal bi ak départemental bi man leen ci dénk lépp li nga xamante ni dafa jëm ci communication ak stratégie wu campagne bi donc loolu boo gisee ñu dénk ma ko euh, dañu jàpp ne xëy na ci wàll wi may liggéeyee war naa ci mën lu bëree bëri bëri ba tax na ci li ñu sukkandiku ñun tey pour falaat président de la république bokk na ci benn communication bu jaar yoon ci surtout ci action yi nga xamante ni moom la jot a réaliser ci juróom-ñaari at yi ñi nga xamante ni moom leen ko fi fal parce que président mun naa ne cinquante huit lañ am indépendance cinquante huit ak deux mille dix neuf ñu ngi tollu ci juróom fukki at ñu ngi toll ci juróom fukki at ak juróom ñeent ci juróom fukki ak juróom yooyu defe naa ne président Macky Sall mooy ñeenteelu président de la république bi mais président Macky Sall daanaka li mu réalisé ci juróom-ñaari at yi ñu ko fi fal mun naa ne ñi ko jiitu ñetti président yi boo cumulé li ñu jot a def. tolluwul ni li Macky Sall def donc kon ngeen xam ne président Macky Sall fal ko lu yomb lay doon ci askanu Sénégal rawatina nag fii ci askanu Koungheul parce que nag gis neen à travers PUDC réalisation yu bëri yi nga xamante ni def na ko fii bu ñu la waxee ne département wu Koungheul rek tey lim bi nga xam ne moom leen fi def ci forage mu ngi toll ci juróom fukk ak ñeent loolu daf di loo xam ne lim bu takkoo takku la bu am solo am solo am solo foofu ci na ndox mi la rek nga jógee foofu ñëw ci bourse de sécurité familiale yi gis nañ li mu ci def nga jógee foofu ñëw ci wàllu pajtal bi gis nañ fi semi mu ngi fi couverture maladie universelle gis nañ fi aussi gratuité des soins ci ñi nga xam ne ñoo am zéro ba juróomi at gis nañ aussi gratuité wu césarienne bi ci jigéen ñi donc yooyu yëpp tey bu doon lim mun neen fi lima lim lim loo xamante ni vraiment lu takkoo takku ci loo xam ne Macky daf ñu ko yéwénal ba tax ñun tey mu mérito ñu war ko mën a jox second mandat. merci beaucoup euh, monsieur le président président laa lay woowee ndax euh, euh, mu kii bi nga xam ne moom nga jiite moo tax ma lay wax président IAM kon bu ñu dellusiwaatee encore ci mobilisation bi nga xamante ne tey gis nañ ne gis nañ say pancarte gis nañu mobilisation bu am doole bi nga xam ne def nga ko te Alioune Badara Ly yàgg ngaa mobiliser. Euh, c'est pas la première fois may gis ngay mobiliser yàgg nañu gis sa mobilisation léegi sa diggante ak yeneen leaders yi nga xam ne ñoo nekk fii lu ci mel ni ay euh, monsieur le maire seen maire bi euh, naka la demee noonu parce que dañuy bu fi mel ni dafa am ñaari camp nan la demee noonu. waaw xam nga fii ci Koungheul mooy li may wax rek cest dire que li ñu bëggoon ñun moo doon ñu am comité électoral ci biir departement wu Koungheul. bon mais malheureusement jotul antu parce que dañu am ñaari comité électoraux mais ñaari comité électoraux yooyu mun naa ne du gàllankoor parce que kenn ku ci ne rek président ngay liggéeyal donc sotti ceeg def ci la ba tax na tey defe naa ne gis ngeen ci arrivé wu président bi je pense que l'unité a été faite toog nen ñun ñëpp daje ci benn géew mobiliser le président tegal ko mobilisation boo xam ne ñëpp gis neen mobilisation bi tey ni mu mel ba président ci boppam taxaw ne bi mu demee Kaffrine gis na fa lim bu takku mais jàpp na ne Koungheul jël na raw gàddu gi donc sa veut que mobilisation bi ñu def tey c'était une mobilisation exceptionnelle donc lu mel noonu liggéey moo ko def. parce que tey dañu liggéey ba am loolu. du ma la toog foofu noonu. Euh, mobilisation bi nga xam ne def ngeen ko tey ngeen def l'unité n'est-ce pas mais est-ce que loolu dina continuer. parce que euh, li des ci euh, peut-être campagne bi des na tuuti presque ay onze jour moo des presque deux semaine moo des euh, li des est-ce que tey jii li ngeen woon président ne yéen a ngi bokk ndey bokk bàyyi or ko da ngeen def ñaari camp di ngeen ko continuer quoi. waaw mun naa ne dinañ ko continuer parce que kenn ku ci ne rek di nga dellu ci li nga xam ne ci nga nekkoon te loolu mooy fal président de la république donc loolu moo am solo tey parce que nag defe naa ne ni ko tub di waxee. tous les man mènent à Rome ñun ñëpp jubluwaay bi benn la yéene bi benn la mooy jàppale président fal ko donc ci loolu la ñu ne jàpp nañ ne comité bi nga xam ne tey man bi ma bokk muy bi Seydou Sy Sall jiite jàpp naa ne quatre-vingt-dix pour cent des responsables du département ñu ngi ci biir foofu beneen comité bi nga xam ne Mayacine moo ko jiite defe naa moog Assane Diop fa nekk ak ay Mbaye donc loolu rek déjà wane na ne te ñun politique man damay faral di wax ne politique majorité la laaj. man tey su may dem ci mbooloo damay xool fii nga xam ne fa la majorité bi nekk ma dugg fa loolu nag tekkiwul ne man dama am problème ak kenn ci ñoom Mayacine sama mag la am nañ ay relation yu rafet bu ñu fekkantee ci bërëb dañuy nuyante dañuy wootante dañuy demlante mais gis-gis bi bokkul moom dafa jàpp ne xëy na am na fu mu sukkandiku pour wax ne moom mooy nekk président commité électoral ñeneen ñi tamit sukkandiku feneen donc je pense que loolu yëpp amul solo li am solo mooy ñun ñëpp jëmuwaay bi ñoo ko bokk jàppale président fal ko moo ñu tax a jóg donc ñu ngi ci loolu. voilà euh, damay ñëwaan encore ci beneen question parce que ñoom dañu wax ne beneen camp bi dañu wax ne allez kii Yaya Sow moo leen di manipuler euh, di leen di def loolu li nga xamante ne xëy na euh, moom mooy moom bëgg-bëggam tax mu leen di manipuler téye leen di leen di manipuler mu leen di est-ce que loolu dëgg la wala. xam nga soxna Awa. man magum jëmm laa et je suis quelqu'un de très responsable et j'assume mes choix du nit koo xam ne nit mun na ma manipuler c'est pas possible Yaya munuma manipuler donc loolu wax bu yàqu la Yaya dañu bokk objectif mooy lan parce que man nag defe naa ne bu ñuy wax waxu fal président de la république man maa fi njëkk taxaw depuis le 13 janvier 2018 ma ne damay fal président Macky Sall créé fi IRM. initiative pour la réélection de Macky depuis le 13 janvier 2018 ba jëmm tey jii ñu ne jour par jour pour jour ñu ngi poser ay actes pour fal Macky Sall donc suñu demee jamono ba ñu taxawal fii kuréel goo xam ne dafa war a fal président Macky Sall ma jàpp ne kuréel googu daf ma fekk si man ci sama bëgg-bëgg donc defe naa ne du ma am problème mu ànd ak ñoom ci liggéey boobu ñépp xam nañ ne man ak yaayaa duñu jaaroo taal mais pourtant élection yi ñu génn muy législatif yi yaaya moo taxoon ma créer liste parallèle yaaya moo taxoon ma nekk dissident inscrire en porte-à-faux ak sama mentor ki nga xam ne moom laa gëm 2008 ba léegi muy président Macky Sall yaaya moo taxoon ma def loolu donc man yaaya mënu ma manipuler dafa am bëgg-bëgg jumuwaay bu ñu jëm ñu bokk ko man ak moom ñu bokk gaal gu ñu ne jàppale président de la république parce que nag tey dama ne présidentielle la c'est la rencontre de homme avec son peuple loolu daf di loo xam ne c'est tellement important que je pense que y pas raison de peut-être créer une dissidence dire que man damay féete fale wala ni ko wolof di waxee rek séentu asamaan soxlawul buuxante foo taxaw seen ko loolu moom solo président la ñuy jàppale nañ ko jàppale bu ñu paree nag le au soir du 24 février bu ñu atteindre suñu objectif muy lan la réélection du président Macky Sall qui pour man est un impératif bu ñu paree ci loolu mais kenn ku ci ne am nga sañ-sañu samp sa ndënd ci digg marché bi ne maay doon lii l'ambition est permise ku ne am nga sañ-sañu am ambition bi la neex mais suñu demee nag ba nga xam ne président de la république son excellence moom moo soxla ñu war a teer suñu këral interne jéem a xool nag nu ñuy jubloo ci loolu. d'accord gis ne euh, tey euh, ci mobilisation bi nga xamante ne def nga ko mu am doole lool ñëpp teg ci seen bët mais dafa mel ni dafa am euh, tuuti xeex ci biir langue gi mais le président ñëw na daal lay siggil ci kanamu nit ñi lool tamit looñ ciy jox. waaw xam nga jëf du réer jëf du réer. damay faral di wax ne président de la république aujourd'hui ci biir département wu Koungheul amul kenn ku ma ko gën a bëgg firnde bi mooy lan ñëpp koo ci tudd ku ne da ngaa xaar Macky Sall jox la dara nga doog ko liggéeyal Macky joxuma lenn li may def sama avenir yu doom laay hypothéquer pour Macky Sall donc du benn je travaille pour le président avec mes propres moyens ci missal élection yi ñu nekk muy présidentielle yi. au niveau du comité électoral bi nga xam ne moom la ñu bokk fii communal budget bi ñu jox mu ngi toll ci juróom benn million six millions leen ñu ci jox pour ñu recouvrer ko ñun ñu ngi def suñu projet budget quatorze millions cinq cent donc am na benn gabu huit millions cinq cent bu ci nekk mais ce gab de huit millions cinq cent il a fallu kenn ku ci ne cotiser ay directeurs généraux ñoo fi nekk ñi nga xam ne mag Macky moo tax ñu doon li ñu doon mais fa ñu tegee dama fa teg joxe yemuma ci loolu département bi neuf commune la compté commune boo dem dugal naa fa oto jàppale askan wi joxe fa budget campagne joxe fa ay moyens pour ñu campagnal Macky Sall mu falu donc kenn gënu mu bëgg département bi defe naa ne loolu tey wane na aussi mobilisation bi nga xam ne réussir naa ko loolu firnde la ci parce que nag askan bi kenn moomu leen ku leen yëg ñu yëg la ku leen safoo ñu safoo la. d'accord euh, donc loolu la. Euh, gis nañ aussi ne euh, da ngay jël sa alal di ko def loolu yàgg nañ koy gis mais woon nga fi tamit ambulance boo xam ne aussi sa alal la ah médicalisé n'est-ce pas mayoon nga fi aussi ay moulin. ci àll bi loolu tamit gis nañ ko fi ndax ay journaliste lañu euh, lépp loo xam ne yaa ngi koy liggéey ñu ngi ci teg aussi suñu bët yaa ngi dem ci àll bi di jël li nga xam ne mooy sa xaalis sa doole di faj ñi nga xam ne dañoo feebar loolu lépp tamit gis nañ ko mais est-ce que dans l'avenir mairie Koungheul bi soxla nga ko yow. xam nga damay faral di wax ne euh, tey li ma intéressé mooy servir Koungheul parce que nag cofeel gi ma am ci Koungheul tax na ba man. dama bokk ci ñi nga xam ne defe naa ne dañu war a taxaw taxawu doomu Koungheul fépp fu doomu Koungheul ne ak jafe-jafe boo munta am su ma amee possibilité bi wala ma moyen bi pour taxawu la dinaa la taxaw parce que nag Koungheul nous a tout donné après nous avoir fi vu naître Koungheul fii la ñu dalee baa ci école Koungheul 2 bi école 2 bi laa jàngee ba am ba dem sem de génn Koungheul dem jàngee ji Tamba door ko dem Dakar donc tey Koungheul fii mooy sama cosaan te nag dama jàpp ne voyagé naa partout dans le monde li ma fa gis dama ko yéene Koungheul donc dama jàpp ne tey lépp loo xam ne rek Koungheul soxla na ko lépp loo xam ne Koungheul teg na ma ko comme mission man dinaa ko tegoo te dinaa ci taxaw ba mu mot sëkk parce que nag defe naa ne mbëggeel mooy baasu lépp d'accord te cofeel googu am naa ko ci Koungheul ci mhm. ce que dans soxla nga ko. nañu xaar ba romb présidentiel yi. dinaa la woo nga ñëw toog ma ne la awa fii laa bëgg a dem. merci internet yi yéen a ko déggandoo Alioune Badara lii la ñu seet si woon tey ci biir këram euh, ndax buñ waxee ne day def social man xam naa ci dara ndax bi ma nekkee dakaar am na benn jour ma am problème ñu jox ma sa numéro ne ma woo ko day faj mais dama ko woo jotuma ko loolu kenn duma ko wax man parce que ay nit ñu baax ñoo ma digal ne ma woo ko soo ko wooyee boo ko jotee rek dina faj soxlo bi euh, bu ko defee dañ koy daal di jox rek mu daal di def li nga xam ne mooy dernier mot fi mu jëmee Koungheul wax na ko léegi léegi fi mu jëmee encore le président Macky Sall le 24 février aussi wax na ko waaye Aline Badara li am na lu dees euh, Aline Badara li léegi dañ la bëgg a laaj euh, yow est-ce que euh, boo jógee xam nga gis nañ ne yàgg Yaya Sow yéen a ngi nekk benn actuellement xam nga du question de question journaliste question journaliste de question nit la ak xëy na mbokkam est-ce que di ngeen continuer amitié bi. waa amitié bi waaw bien sûr amitier moom loolu xam nga amitié ak politique bokkul tey mun nga nekk sama adversaire politique nekk sama xarit firnde bi man woote naa fii politique commencé ko dawal ñaari at ba ñetti at sama xarit bi ma gën a jege bokkul woon ci yoon bu ma waxee mu ne ma gëmuma la damay xaar ba gis lu ma doy ma doog a dugg te du tere bu ma xëyee taal samay oto dem ci àll bi liggéey guddi su ma ñëwee ñooy toog naan ataay ba deux heures donc muy wane rek ne politique ak loolu jotewul dara man ak yaayaa mosuñu am problème mosuñu am problème dañu wute gis-gis xëy na moom ni mu gisee politique ak man ni ma ko gisee moo wute loolu kese la woon boobu nag tey bokk nañ gis-gis mooy lan président de la république Macky Sall ñu fal ko donc tey ñoo bokk objectif loolu leen ne bu ñu ko rombee nag. ba ñu toll foo xam ne xëy na kenn ku ci ne dangay ngay bëggal sa bopp te nag jàpp naa aussi que ne man je milite à Koungheul mais Yaya Sow mu ngi milité Ribot àdduna du neex ba Yaya ñëw fi am na fi kër nag mais defe naa ne du milité si Koungheul xanaa président léegi nag euh, dañ koy daal di jox rek mbokk internet yéen a ngi bàyyi xel sunu tv point com euh, su émission su li ci dëkk bi la dañ koy faral di defar gi seeti politiciens yi tey nag ñu doxantu ba Koungheul ñëw seet ci xale bi nga xamante ne loxoom dafa set tax mu bokk ak ay mag euh, ndab ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant dañ koy di jox rek mu daal di tàggatoo joxe war encore message bi mi nga xam ne moom lay lancé population Koungheul ak le monde entier ndax ku baax la ku yaatu la te ku am xel la macha allah dañ koy daal di jox micro bi rek mu def tàggatoo di partagé di aimé bouton bu xonk boobu noonu dee leen ko bës am na ci solo torop waaw jërëjëf soxna Awa moo bu mujj bi moowu cant lay doon sant la gërëm la ci opportunité bi nga ma may ma jàkkaarloog mbokk internet yi yeggee leen sama xalaat donc maa ngi la ciy sant di la gërëm bu baax a baax di jaajëfal nag bu baax a baax waa Koungheul parce que tey ni ñu tertoo suñu président muy Macky Sall sant naa leen ci gërëm naa leen tey accueillir neen le président de la république dans l'unité et surtout surtout en masse loolu mu amuñu seen fay te taxawaay bi yàggoon na lool defe naa ne 13 heures fekk na nit ñi taxaw ba 19 heures bi président di ñëw nit ñaa ngi foofu bougé wuñ dem neen sax ba nit ñi di xëm ci biir mais taxul ñu yàq benn yoon dañoo toog di ko xaar donc loolu amuñu seen fay ñu ngi leen di sant bu baax a baax di aussi di leen wax ne. combat bi day continuer parce que nag ñun dañu am objectif objectif bi mooy lan ñun dañu créer slogan 80 pour cent Macky 80 loolu mooy lan dañ jàpp ne kat ñun pour ñu delloo njukkal président ci teraanga yim ñu defal ginnaaw nomination mu fi def ci ay doomu Koungheul mu takku lool nag ñëpp teg ci seen bët ginnaaw aussi réalisation yu bëri yi nga xam ne defal na ko département wu Koungheul ñun dañ jàpp ne pour delloo ko njukkal mooy lu mu néew néew néew néew dinañ ko jox quatre-vingt pour cent de l'électorat au soir du 24 février donc loolu pour ñu mën ko am damay ñaax sama mbokk Koungheulois ñu gën ñu ci jàppale farlu ci dem jëli ci carte électeur yi parce que nag ngànnaay mooy dem xare boo amul ngànnaay munoo dem xare buñ jëlijee seen carte yi ba pare nen ñu ko jox ñu jox ko Macky sàll dooleel Macky falaat Macky parce que kat nag Macky njëriñ la lii muy defandoor ci réewu senegal defe naa ne tey mérito nañu joxaat ko second mandat donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la jaajëfal bu baax a baax a baax di rafetlu aussi sa liggéey donc maa ngi lay sant bu baax a baax ci loolu di ñaan yàlla aussi liggéey bi gën a yaatu jërëjëf. merci beaucoup euh, comme niñ koy faral di defee rek euh, saa su nekk euh, nee naa leen moom ku baax la macha allah yal na ko yàlla defal jàmm le président moo ko ñor président moo ko doy président moo ko jaral mu jël alalam di ko def ci kon boo ko internet yi ñu ngi leen di jox dig dajee yeneen i émission ak yeneen i politiciens peace and love merci beaucoup